salaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar quatre-vingt-dix-sept euh, point cinq ngeen koy am samedi bu jot euh, dix heures jàpp onze heures di ci ànd ak euh, Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni ñenn ci ñi nga xamante ni doon nañu liggéey ci société bi lee di Senelec ñu daal di leen licencier ñu ñëwaat ci problème boobu boobule ba léegi ñoom ñuy amal ay euh, dox ñaxtu wala ay manifestation ngir rek mën a duggaat euh, ci bile entreprise ñu fas yéene waxtaanee jafe boobu boobule ak tamit négociation yi euh, fan lañ ci toll ak tamit autorités yi comme DG wu Senelec wala sax ministre concerné moo waral tey ji ñu dalal Ousseynou Sougou nekk secretaire général bu collectif de restants du concours de la Senelec ñu koy nuyu di ko dalal jàmm waaw salaamaaleykum euh, mbokk auditeurs yi waat naa ñëpp euh, di nuyu ndey Comba mi nga xamante ni moom ma dalal tey ci ci Rewmi FM 97.5 ma koy remercier bu baax a baax bon je me nu Ousseynou Sougou je suis le secrétaire général du collectif des restants du concours de la Sénélec. waaw tey jii bala ñuy dugg sax ci seen problème exactement dinañ la laaj euh, da nga doon liggéey Sénélec lan nga fa doon liggéey naka nga fa duggee naka nga fa génnee. bon waaw Senelec nag euh, bari na ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk mooy dañoo regroupé wu ci benn euh, regroupement boo xamante ni ñu ngi ko tuddee les restants du concours euh, donc bari na ci ñoo xamante ni c'était depuis 2015 Pape Dieng bi mu bi mu licencié les 493 personnes dañ ñoo woowoon ñun pour ñu ñëw assurer la situation donc ñun ñëpp ñu ñëw assurer la situation donc bi ñu assurer situation bi ñu promettre ñu des embauchements qui seront faits ci ñoo xamante sax dañ leen daggaloo seen jàng ñu dagg seen jàng ñëw nekk ci situation yooyu di redresser collègues depuis Pape Dieng donc Matar bi mu ñëwee moom dafa régulariser les 493 mais ñun nag dañ ñoo defloo un concours le 4 mars 2017 bi ñu defloo un concours boo xamante ni. non bala ñuy ñëw si concours bi naka la demee yow yow bëgg nañ xam yow lan nga doon liggéey ci Senelec bi. waaw man Senelec nak nga fa duggee exactement. waaw man Senelec nag man dama fa dugg cela fait 6 ans ngi nii maa ngi Senelec donc man maa ngi fa duggee via. 6 ans avant ñu lay euh, licencier. 6 ans avant donc man maa ngi fa nekkoon euh, comme euh, agent enquêteur. au niveau du reclassement avec Habib Aïdara qui est le nouveau euh, chef d'agence de, euh, de Sacré-Cœur moom mooy en même temps aussi tamit le secrétaire général de Sutelec le plus grand syndicat de la Sénélec. maanaam yow liggéey boobu lan lañ si a dégg enquêteur. waaw enquêteur c'est-à-dire euh, on faisait des enquêtes dans les maisons on, on faisait des recensements et en même temps aussi tamit j'étais un agent polyvalent au niveau de la Sénélec je faisais la coupure la relève la présentation des factures le branchement ainsi de donc mais dina ñëw tuuti tamit si liggéey boobu ak jafe-jafe yi nga xamante ni waxuñ sax jafe-jafe Senelec mais jafe-jafe bi nekk ci euh, dem relever dem couper ainsi de suite nga waxal ñu si tuuti ak si sa expérience au niveau de la Senelec. waaw xam nga xam nga Senelec dafa bari ay branches yi nga xamante ni nit ñu ñun ñëpp ñu ngi fa ci collectif yi collectif yi c'est cent quatre vingt bari na ay branches yoo xamante ni gars yi ñu ngi ci. ñoom ñëpp ñu ngi foofu ñoom ñëpp ñu ngi woon foofu Senelec. ñoom ñëpp ñu ngi woon Senelec foofu noonu donc am na ci ñoo xamante ni ñii c'est des caissiers ñoo xamante ni ñu licencié leen ñu ngi fii ci boîte bi am na ci ñoo xamante ni c'est des monteurs c'est am na ñoo xamante ay compte finaux lañ doon def bari na daal bref Senelec dafa bari ay branches yoo xamante ni ñun ñu ngi fa woon ñu regroupé woon foofu noonu mais ñu xëy un beau jour ñu def la ñu concours concours boobu nag moom moo ñu. non non léegi yow wax ma liggéeyu enquêteur maanaam relevé bi ngeen di def ak coupure bi yan jafe-jafe ngeen si doon jànkonteel yow yow personnellement si liggéey boobu. parce que dem coupé euh, peut-être sa relevé jafewul mais dem coupé euh, euh, bëri na ay jafe-jafe. waaw bien sûr xam nga xam nga ku xam. waaw xam ku xam ku xam furie population bi xam nga donc nga ñëw fekk nit war koo couper donc yow xamoo ban tempérament la am xamoo lu mu am te aussi itam yow yow da ngay nekk ci risque. da ngay nekk ci risque donc mën nga ñëw fekk koo xamante dafay fay ba pare euh, surtout les les les mën nga fay ba pare nga ñëw war koo couper mu ne la non non doo fay naa ba pare donc y a des yoo xamante ni ngi ci te ñu ngi ko doon jànkonteel. te suñ la waxee doo laal bi naka ngay def pour couper waaw mais doo couper mais tu es obligé nga retourner bon bi rek bon ci bon bi ngay bind nii à ce que ni euh, de coupure donc. c'est parfois dañ naan dañuy dem si poteau courant bi je sais pas toujours. waaw donc ça se toujours mais loolu moom suñu supérieurs yi ñoom ñooy ñoom situation boobu quoi l'agent est chargé de faire la coupure seulement mais pas muy nekk fa di forcer quelque chose comme ça quoi. Mm. mais tamit ci ci parfois sugu da gis euh, euh, consommateurs yi dañuy ainsi de suite parfois factures yi jaarul yoon maanaam euh, consommation bi ngeen di euh, souvent teg euh, consommateurs yi dañuy gis ni jaarul yoon loolu lan nga siy tontu exactement est-ce que tamit ci relevé yi amul lu si laxasu est-ce que relevé relevé niñ ko war a defee est-ce que ñu ngi koy defee carrément waaw c'est-à-dire xam nga xam nga comme mooy li ma wax sànq rek damay revenir at un peu xam nga Senelec nag daanaka dafa externaliser liggéeyu relève yi présentation bi ainsi suite quoi donc xam nga la relève euh, donc dafa nekk liggéey boo xam dafa sensible donc euh, pour nga ñëw ba gis bi xool li mu marqué nga bind ko ci folio bi donc yooyu yëpp c'est des choses yoo xam te ni dafa sensible comme li may wax sensibilité bi may wax rek mooy ñëwaat quoi donc dafa sensible il va falloir nga xool bu baax baax a baax li ngay bind parce que à moindre erreur rek yow mën bi un boo xamante ni wala euh, wala consommation boo xam dafay élevé waaw donc parce que parfois ngay gis que client bi day wax ni facture bii ñu ma àndil consommé wu ko dem di réclamer. est ce que boobu du seen faute yéen les les waa waaw effectivement boobaa yaa a deux choses boobaa boobaa su fekkee noonu la demee rek dafay fekk mu nekk un erreur de relève. agent bi nga xam ni moom la ñu yabaloon pour mu dem relever mën na juum ci index bi nga xam ni moom la relever mais des fois aussi tamit mën na nekk loo xam ni lu exa lay doon parce que xam nga les clients ñoom bu ñuy am matériel bu bees duñ ñëw Senelec di ko déclarer. ñoom dañuy taal rek dañuy consommer dañuy consommer consommer donc c'est ça le problème quoi donc mën na nekk une erreur de relève nag mais mën na bañ a nekk erreur de relève. nag dañu gis ni souvent c'est consommateur bi moom en a fay dafay fay. waaw donc xam nga su fekkee dafa nekk erreur de relève tamit euh, le dañ koy permettre mu ñëw Senelec bu ñëwee mu dem gis chef de facturation bi bu gisee chef de facturation bi moom mu yabal fa beneen agent pour la vérification bu vérifier ba pare mu leer ko ni agent bi moom moo juum donc il va falloir dañuy redresser facture bi. mais loolu nag li si li si consommateur yi di am gain de cause bariwul lu ci ëpp ku ak lu mu mënti demee da ngay fay. waaw loolu nag moom vraiment loolu gis. waaw loolu moom vraiment nekk na loo xam ne lu doy waar la mais man cas yi ma gis yëpp moom Senelec dafay redresser la facture moom. la c'est waaw yi mais léegi vraiment avec la euh, la daan avec la nouvelle technologie euh, donc euh, estimation boobu moom ce plus possible moom amatul. Ah, waaw non nga ñëw ñu tëj kër. gars yi nekkuñ fa ainsi de suite euh, releveurs yi ñëwuñ nga xool lañ daan fay ñii dañ daan fay cinquante mille nga defal leen cinquante mille andil leen estimer ko alors que kër ga kenn nekku waaw xam nga xam nga e, e, estimer moom dafa nekk loo xamante ni man je ne pense plus ne am na quoi waaw parce que xam nga estimer nit euh, loo xamante ni euh, ko loolu moom moom moom. waaw à peu près boobu moom. vraiment wala si matériel yi mu euh, déclaré. yow lan ak lan nga am. nga ne am naa frigo am naa lampe am naa télé am naa lii am naa naa lii donc à donc estimation boobu moom je pense plus que ni am na léegi quoi parce que avec la nouvelle technologie je ne pense plus am na ak aussi tamit euh, la nouvelle propagation euh, des compteurs woyofal bi nga xamante moom la gars yi imposé léegi donc estimation boobu amatul moom parce que léegi mais parfois comme ça agent bi su ñëwee euh, fekk kër gi tëju. Euh, waa kër gi nekkuñ fi deux mois trois mois mais facture dafay ñëw kon si lan la ñuy basé wu pour indi facture. waaw alors que relevé wu. waaw xam nga man nag euh, cas yu bari yu may dal yu mel noonu man je préfère fermer. Hmm. dama koy def fermer donc ba keroog may gis index bi ñu relever ko l'index mooy la consommation bi nga xam ni moom moo nekk ci compteur bi quoi hmm. yu bari dañ koy fermer wala des fois bi su demee un mois deux mois donc moom mooy jël la facture mu ñëw Senelec ne man kat ma génnoon woon mu indi index bi à part de xam nga looloo normal. waaw mais est-ce que looloo am. bon waaw xam nga kenn ku ci nekk sa bopp nga xam mais man personnellement man loolu laay def te je pense que la plupart des des agents ñoom tamit. Ah, loolu la ñuy bu ñu wax je pense wax ñu parce que nekk nga Senelec am nga fa expérience. gis nga nu ñuy liggéey mais mën nga ñu wax yow li nga wax ni moo normal dans les norme soo ñëwee fekk benn kër fermé wu deux mois trois mois quatre mois six mois nga xam ne waa kër gi dañu tukki kenn nekku fi. dans les norme waruñ am facture wala sax bu ñuy am facture warul nekk facture bu cher noonu mais dañu gis ni d'habitude. Euh, waa kër googu tukki deux mois trois mois quatre mois kenn nekk fa bu fekkaan dañ doon fay cinquante mille dañ leen di indil tout le temps chaque deux mois benn facture cinquante nga gis ku ku dem di réclamer mais man sama kër kenn nekk fa ngeen indil ma facture cinquante mille waaw xam nga loolu moom li ma ciy waxaat tuuti rek mooy xam nga un contrat c'est deux parties donc dafa am contrat boo xamante ni daf la lié yow client bi avec Senelec donc cest à su fekkee da nga toog deux mois jotuloo facture wala mu fekk nekkuloo fi quatre mois li ci Senelec wax mooy da jël la facture nga ñëw Senelec ñu defaral la facture mais quant estimation boobu noonu noonu noonu je que wàññeeku na bu baax a baax a baax je pense que même amatul parce que avec la propagation comme ni ma la ko waxee sànq des des nouveaux woyofal ak aussi tamit sécurisation bi nga xam ni Senelec mu ngi ko ci liggéey parce que la plupart des compteurs yi nekkoon à l'intérieur léegi on a tendance à les mooy relever day bi comme li ngay wax ni des fois mën nga gis koo xam ni dafay dem pendant deux mois pendant trois mois compteur bi day nekk à l'intérieur léegi Senelec mag il tendance à faire la sécurisation mu ngi génne tous les compteurs qui sont à l'intérieur mu génn ko à l'extérieur voilà euh, ñu ñëw ci ci seen problème exactement parce que début bi euh, je pense quatre cent euh, quatre-vingt-treize euh, ngeen woon yoo xam ne dañu jékki-jékki dàq leen foofu lay ca Senelec est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun exactement mu leer ci bopp askan wi naka la problème bi demee exactement ba ñu dàq leen ak concours bi ainsi de suite. waaw bon bi moom dafa dafa dafa large te je pense que problème bi aussi tamit dafa yaatu. donc euh, problème bi ku ciy wax moom je pense que sax du amuñu sax temps bu rëy pour mën koo exposer parce que tellement que dafa yàgg donc euh, ku xam les chiffres da ngay xam les 493 bon les 493 nag ñoom ils ont été licenciés par Pape Dieng ancien DG de la Sénélec moom moo nekkoon DG de la Sénélec moom moo fi nekkoon avant Matar Cissé donc bi mu leen licencié ñu ñëw donc ñun sax fekkoon nañu déjà ci boîte bi ba pare mais ñun ñu ñëw am fa des contrats ñuy liggéey les 493 étaient d'or léegi Matar Cissé nag moom moo ñëw régulariser seen situation avec euh, avec euh, l'aimabilité de Jamra mooy Mame Matar ak ñeneen ñoom ñoo ci doon dox tànku jàmm bi ñu ci doon dox tànku jàmm nag léegi ci la Matar Cissé décidé ne dafay régulariser les 493. mais lan donc bon c'est-à-dire xam nga daf leen bëggoon dugal ñu dem GIE. te alors que ils étaient des contractuels am na ci ñoo xamante ni ñii def nañ cinq ans ñii def nañ dix ans mu xëy un beau jour ne leen da ngeen di e. léegi nag les 493 ont refusé bi ñu refusé ça dem ak moom bras de fer GIE e mooy groupement d' intervention. mooy mooy bi nga xam noonu donc tu ne plus payé par la Sénélec directement mais da ngay ni organiser wu en GIE. Mm. waaw da ngeen organiser wu en GIE bu ko defee léegi Sénélec en prestation de service la leen di fay. Ah, waaw comme waaw dañ leen di berfële. dañ leen bu ko defee Sénélec bu amee tâche woo leen jox leen ko après mu fay leen. waaw bu amul waaw bu amul ngeen dem chemin léegi nag les 493 ont refusé non Pape Dieng moo defoon loolu waaw Pape Dieng non je sais plus donc xamuma nag exactement la moo waral mu def loolu donc xëy na peut-être que sa politique bëggoon na propa bëggoon na imposer gars yi les compteurs woyofal mm. donc xam nga compteur woyofal nag boo ko imposer donc tu n'as tu n'auras plus besoin de beaucoup de bras maanaam woyofal bi de bi daf leen yàqal lu bari ah, waaw woyofal bi moom daf ñoo yàqal lu bari daf ñoo yàqal lu bari parce que xam nga comme c'est avant bu nekkul woon woyfal di nga mën a donc y aura les normal di nga mën a dem relever ji ñu mën a dem couper client bi dem présenter ko facture donc y aura beaucoup de travail mais avec euh, la propagation di woyefal donc tu n'auras plus besoin de beaucoup de bras donc donc bu fekkee woyofal bi euh, moom la consommateur yi gën a bëgg parce que di nga mën a euh, gérer xool sa consommation gérer ko comme ni nga ko bëggee gis nañ ni kon dafa am ay conséquence ci liggéeykat yu bëree bëri maanaam soxlaatuñ releveurs yi ainsi de suite. waaw effectivement euh, bëri na conséquences yoo xamante ni engendré na ko vraiment bëri na trop trop trop conséquences yoo xamante ni mu ngi ci donc ma revenir un peu ci yi rek donc bi ñu leen licencié ñoom tam ñu dem bras de fer de wàcc nekkatul DG donc ci la Matar Cissé ñëwee Matar Cissé nag moom bi mu ñëwee il a décidé avec euh, Mame Matar Gueye mu régulariser les 493 donc nag mais dafa ne woon du ko régulariser en un coup. mënul Matar Cissé ñëwee loolu la wax. fekk boobu euh, Mame Matar Gueye moo leen di jàppale bu Jamra. Mame Matar Gueye bu Jamra moo ñu doon jàppale. donc léegi après bi mu nee bi mu décidé régulariser ko dafa ni mënu ko def en un seul coup mais il doit faire les dans les dans la première année 200. année ba ci topp les 93 mu régularisé ko le reste léegi te noonu la def aussi tamit quoi il a bien respecté sa parole te noonu la def mais ci biir 493 yi dafa desaat les 189. léegi ci 493 yi euh, ñaata ñoo des. 493 yi jeex na tàkk. il a tout régularisé mais dafa des cent quatre vingt neuf ñoom ñëpp dugg nañ. mais mais mais ci ban statut lañ leen dugalaatee. non tous des CDI lañ de travailler ñoom ñëpp ñu ngi liggéey. donc léegi ci quatre cent quatre vingt treize yi bi ñu jeexee. donc dafa des ex contractuels moom mooy ñun. maanaam yéen. waaw ci naka expliquer waaw cest dire ñun ni ñu desee parce que ñun ñëpp on était de ñun ñëpp on est de contractuels. Mm-hmm. des contractuels de la Sénélec. léegi nag ñun pour ñu liquider ñu ñun dañoo décider organiser ñu benn concours un 4 mars 2017. d'accord bi ñu bi ñu jëlaatee defal CD 493 yi. waaw mu des 189 contractuels. waaw 189 contractuels léegi ñu décider lan. pour régler seen problème. waaw pour régler suñu problème léegi nag ñoom ñu ne dañuy defal benn concours. les concours boobu le concours a été organisé un 4 mars 2017. Mhm. les concours boobu bi ñu ko defee. c'était juste pour caser leur clientèle politique. pour caser seen i jarbaat caser seen i doom parce que ñun loolu la ñu gis. mais lan lañ leen wax ci concours bi. ak lan moo waral concours bi pour ñu ñu ñu ñu ñu jël leen. waa xam nga ci yan terme. waaw xam nga concours boo ko déggee rek xam nga donc ñun on est tous des sénégalais parce que xam nga boo nekkee ci benn boîte nekk fa contractuel di fa xëy di fa xëy di fa xëy ñu xëy un beau jour ne la concours dafay am donc tes parents ñoom ñoo lay njëkk a imposé ne demal nga defi concours bi pour avoir la chance nga dugg donc ñun bi ñuy def concours bi ñun ñëpp jàppoon nañ ni ku am moyenne dinañ la régulariser. te boobu yéen a ci biir Sénélec. boobu ñun ñu ngi ci boîte bi di liggéey. ñun loolu la ñu defoon suñu xel. mais ndekete concours bi bi ñu koy def c'était juste pour caser leur clientèle politique pour caser seeni i neveu seeni seen i doom ainsi de suite ainsi de suite. mais lu tax nga wax loolu. expliquer bon cest à euh, nga li tax ma wax loolu les faits sont là les preuves sont là donc parce que man mënuma gëm concours bi am na ci ñoo xamante ni et puis les preuves sont là man mënu gëm nga def concours. nga jël ki nga xam te ni il a une moyenne de deux sur quarante bàyyi ki nga xam ni il a une moyenne sur quarante tey jii boo doon jël ndey kumba kan ngay jël. Mm, ki am sur quarante. Mm. nga dem jëli ki am deux kan ngay jël. léegi ñu jël ñaata ci cent quatre vingt neuf contractuels yi. ci cent quatre vingt neuf contractuels yi ci woon kenn mais tout récemment la am gain de avec un protocole. d'accord bi concours bi amee. Ah, bi concours bi amee laa wax bañ def ko ba pare. yéen ngeen def ko yéen 189 yi mais ci 189 yooyu amul ñu ci jël ne ñii ñoo raw ci concours bi wala je sais pas. waaw donc c'est-à-dire moom laa lay expliquer waat xam nga concours bi mu amee ba pare. donc ci catégorie bi nga xamante ni dafa bëri woon ay catégories yoo xam dañu def y avait une catégorie ACI mooy agent commercial d'intervention ak ACO mooy agent commerciaux ainsi dafa bëri ay branches yoo xam ne dañoo defoon concours bi. léegi bi ñu defee concours bi ñun catégorie bi nga xam ne moom lañ nekkoon muy ACI agent commercial d'intervention donc sur et quelques membres yi vingt six lañ vingt six personnes kese lañ ci jël imagine waaw lañ ci jël. te te niñ ko jëlee jaarul yoon. waaw te ni ñu ko jëlee sax boobu jaar na yoon parce que dañu ne dañoo commencé woon euh, ñi am moyenne trente cinq jëm ba vingt cinq ñu yem fa. donc ñun jàppoon nañ ni loolu baax na. jàppoon nañ loolu baax na mais à notre grande surprise bi ñu demee ba ci biir ñu gis ni am na ay recrutement yoo xamante ni am na ci. ñu jël koo xam ne moyenne deux sur quarante la am ñu bàyyi koo xam ne il a une de vingt cinq sur quarante. loolu ñun moom moo ñu jaaxal. de moyenne deux sur quarante nga dem jël jël ko ba pare bàyyi ki nga xam ne il a une moyenne de vingt cinq sur quarante ñun loolu moom moo ñu jaaxal. léegi yéen lan ngeen waaw ak lu ngeen di euh, kaas. waaw ndey Kumba ñun li ñuy kaas euh, biñ ko dalee kaas dafa yàgg. ñu ko dalee kaas dafa yàgg bon parce que boo xoolee avec euh, je de passage Mame Matar Gueye bu ONG Jamra je remercie aussi tamit Innocence Tab Ndiaye. dañ leen si jàppale si xeex bi. waaw ñoom aussi tamit jàpp nañ ci xeex bi bu baax a baax a baax parce que ñoom aussi tamit ay jullit lañu ay nit lañu bon ñun bi suñu bët xonkee dañoo dem seeti Mame Matar. Mame Matar Gueye bi ñu demee seeti ko man personnellement je fais partie des cinq personnes yi nga xam ne. ñoo yéen a demal seen bopp seeti Mame ñun ñoo demal suñu bopp dem seeti ko pour mu jàppale ñu ñu xeex injustice bi nga xam ne ñu koy dund au niveau de la Sénélec bi ñu demee mu laaj ñu des preuves ñun aussi tamit on lui a amené les preuves moom aussi tamit mu enclenché procédure bi woo les DG woo ministre ainsi suite moom moo xam fi mu jaar. ba am euh, gain de cause léegi bi mu amee gain de cause donc euh, y a un procès verbal bi nga xamante ni signé woon nañ ko c'était en mars 2019 moom lañ signé woon procès verbal bi y avait la présidence de Souleymane Souaré donc Souleymane Souaré euh, moom mooy le le secrétaire général de SATEL un de la Sénélec donc y avait le nga xamante ni moom moo fi nekkoon muy El Bachir Sall léegi il n'est la présidence de Mamatar Gueye aussi tamit ñoom ñoo fi nekkoon ñu signé le procès verbal léegi procès verbal boobu bi ñu ko signé ñu nekk ci combat bi nekk ci combat bi biñ ci nekkee jusqu'au jour euh, du di du du 7 août. léegi nag euh, moment boobu Bitey moom moo fi nekkoon Pape Demba Bitey bi mu ñu woowee mu ñëw ñu ñëw ñu ne léegi daf ñuy signer un protocole d'accord donc ñun protocole d'accord boobu bi ñu ko signé ñun jàppoon nañu on a gain de cause. jàppoon nañu maanaam yéen ñëpp dinañ leen jëlaat. waaw ñun loolu la ñu defoon suñu xel. Hmm. ni protocole moom bu ñu ko xasee ba signé rek parce que comme ni ko tubaab di waxee rek les paroles s'en vont mais l'écriture reste. parce que ñun loolu lañu ñu gëmoon ñun. léegi nag ñun à notre grande surprise bi mu signé protocole bi dafa ñu waxoon nañu dinaa embauché ci yéen quinze personnes. ci cent quatre-vingt. les cent quatre-vingt-neuf. dinaa ci embauché quinze personnes. defal leen directement ñu am ay CDI. yi ce qu'il a fait mais. beneen point bi moo ñu jaaxal parce que dafa ni les restes mooy les cent soixante quatorze personnes yi nga xam ni mooy les restants dama leen di déverser ci société intérimaires yi dans l'immédiat bu ko defee ñoom ñu commencé liggéey saa yu ma soxlawee ma retirer foofu ba keroog les cent quatre vingt ba keroog les cent soixante quatorze personnes yi jeex tàkk léegi nag ñun ñu toog di xaar loolu parce que ñun aussi tamit ay sénégalais lañ ay citoyens lañ ñu ngi ci dëkk bi fii lañ dëkk ñu toog di xaar loolu bi ñu toogee di xaar loolu à notre grande surprise non seulement il n'a pas respecté bi ñun loolu moo ñu gën a jaaxal il a la le protocole da ko violé bi mu ko violé ñun aussi tamit à notre grande surprise ñu gis des images yoo xamante ni secretaire secrétaire général du Sutelec muy Habib Aïdara wax ko ñu wan wane ko mu ne tout récemment bi tey na ñoo xam ni kum ci laaj da nga naan nee à Kaolack nee à Kaolack nee à Kaolack te ñun loolu moo ñu jaaxal. bi mu waxee ni euh, conseil d'administration bi. Euh, waxu ko nombre de postes mais defal na ko rallongement budgétaire rallongement budgétaire boobu noonu day xool ñaata nit la mën a englober mu jël ko ñu moment boobu daf ñu waxoon ni rallongement budgétaire bi quinze personnes la mën a jël mais ci diggante bi embauché na plus de cinquante personnes yoo xamante ni ñun bokk. bokkul ci ci ci collectif bokkuñu ci collectif bi. te ñun daf ñu waxoon ni collectif bi dina am traitement préférentiel buy embauché. te ñun loolu moo ñu jaaxal ci diggante bi il a embauché plus de cinquante les preuves am ngeen yéen preuve ci li ngeen di bien sûr am nañ ci preuve am na ci ñoo xamante ni yor nañ seen tur ñoom seen matricule mu ngi fi ñun yor nañ ko donc ñun loolu moo ñu jaaxal. mais comment se tamit yéen collectif bi ñuy kaas ñu bëri euh, dëkk Kaolack wala juddoo Kaolack comment euh, mën nga ñu ko expliquer. waaw non loolu moom xëy na peut-être que moom moo ko xam parce que moom lui il est de Kabatogi. Mm-hmm. Euh, donc ku wax Kabatogi wax Kaolack. Mm-hmm. donc ñun na dañuy jàpp ni waa Kaolack certes ci Sénégal lañ bokk mais ñu Kaolack peut-être que Dakar la ñu juddoo am na ñoo xam ne ils sont de mm-hmm. yi nga xam ne ñoo xam ne ñu ngi Tamba ñii ñu ngi Ziguinchor ñii ñu ngi Thiès un peu partout au niveau national donc ñun loolu moo ñu jaaxal pourquoi les Kaolack la ah loolu moo ñu jaaxal ñu. donc ba léegi ci foofu ngeen toll euh, est-ce que tamit bi affaire bi amee côté justice jéem ngeen si dara dem ci justice xool. lu leen yoon mën a may tamit ci combat bi. waaw côté justice nag moom euh, ñun xalaatoon nañu ko mais bon xam nga Mame Matar bu ONG rek ku ko xam-xam ni nitu jàmm la. Mm-hmm. donc euh, bi El Bachir Sall rencontre bi nga xam ne amoon nañ ko ak El Bachir l'ancien directeur ressources humaines moom dafa waxoon ne nañ dem justice. mais Mame Matar Gueye bu ONG jàmm rek ko xam-xam nitu jàmm la moom dafa imposé woon El Bachir ne ko ñii ñaanuma yàlla ñuy dem ak yow ay justice ñii say njaboot lañ yaa boole boo njaboote say rakk ñoo fi nekk say say say jarbaat ñoo fi nekk say doom ñoo fi nekk damaa bëgg nga jàppale leen parce que ñoom aussi tam ci société bi la ñu bokk donc loolu moom moo tax te ñun aussi tamit man wàllum justice moom man préféré wu ma ko man je préfère lépp rek ñu waxtaane ko à l'amiable waaw man daal loolu xeexee ko nii daal moo leen gënal. mais tamit euh, dem ngeen si Jamra mais tamit euh, gis nañ ni waa ñoom Guy Marius Sagna waa FRAPP France Dégage ñu ngi leen di jàppale euh, lu ko waral yéen a fa dem ñoom ñoo leen fekk si comment ça s'est passé. waaw may remercier waale aussi tamit Guy Marius Sagna donc sunu frère boobu vraiment il est quelqu'un de très gentil bon il est quelqu'un de très serviable aussi tamit donc pour le cas de Guy Marius Sagna Guy ñu Sagna dem nañ fa avant ñuy am CDI avant ñuy am 15 CDI. avant ñuy am 15 CDI dem nañ fa te bi ñu fay dem aussi tamit c' était l' accord de Mamatar parce que ñun Mamatar moo jiite woon combat bi jusqu' à présent moom moo ci nekk. bi ñu fay dem boobu Mamatar il était au te waxoon nañ ko ne ko ñu ngi dem ci Guy Marius Sagna bi ñu demee ci Guy Marius Sagna donc on l'a exposé situation bi donc ñu wan ko les preuves wan ko papier wan ko lépp donc aussi tamit il a nu nous rejoindre il a voulu nous aider donc ñun côté boobu laal lañu koy santé di ko gërëm. te aussi tamit gis nañ bi mu ñu dimbalee tamit bon am nañ satisfaction. ah ci ban côté ban ba ba sooboo ci xeex mi ban satisfaction ngeen ci am. waaw satisfaction bi ñu ci am parce que dafa rendre affaire yi beaucoup plus visible donc beaucoup plus visible ko rendre parce que tamit ñun avant ñuy am 15 CDI. la ñu demoon ci moom je vous rappelle avant ñuy am 15 CDI la ñu demoon ci moom xaaruñu ba 15 CDI dem ñu soog dem ci moom non non ñuy am 15 CDI je me rappelle bien je fais partie des premières personnes nga xam ne ñoo demoon ci moom avec euh, mon ami et frère Michel Sarr qui est maintenant Saint-Louis moo nekkoon le secrétaire général du collectif mais maintenant man maa nekk le secrétaire général du collectif la demoon ci moom bi ñu demee ñu exposé ko suñu situation président tamit bàyyiwul jusqu'à présent mu ngi ci. mais socialement Sougou euh, naka ngeen di dundee li nga xamante ni moom la leen Senelec daal di teg jékki-jékki euh, licencié leen dàq leen ngeen di daw di kaas suba ngoon guddeeg bëccëg socialement naka ngeen koy dundee. waaw socialement moom foo ko natt rek weesu na ko. parce que imaginez Sénégal ak ni mu méttee donc personnes yi c'est des de famille c'est des de famille c'est des de famille. donc parmi nous sax am na ci koo xamante ni ñaar ñoo xamante ni décédé nañu certes Marie leen Gueye ma koy ñaanal aussi tamit de passage ak keneen koo xam ne décédé nañ ci bi noo Amadou Gueye décédé na ci am na ci ñun parmi nous am na ci ñoo xam ne ñaar dem nañ ci gaal gi ci gaal gii ni Barça wala Barça parce que si kanam bëgg naa ñu dugg ci wax si tuuti. waaw Barça Barça bi am na ci ñaar ñoo xam ne dem nañ ci may leen di ñaanal suñu borom. xaalis daal di si si. li ko waral mooy désespoir de de la jeunesse loolu dong moom ko waral désespoir rek. donc euh, loolu côté boobu daal social moom ku ko wax xam ni metti na. parce que nga nekk père famille nekk sa kër papa sa kër yaay wala nga am soxna am ay doom xam nga seen éducation war seen jàng war xam nga nga doon xëy Senelec un beau jour Senelec xëy dàq la donc donc là c'est ça devient difficile te je pense que Ndeye Comba yow jigéen nga war nga xam situation boobu noonu noonu noonu jamono ji quoi. mais tey jii ngeen di xeex c'est euh, ce n'est pas le moment euh, idéal parce que ñu ngi toll ci jamonoy crise Covid 19 bi tout est-ce que dina yomb pour ñu mën leen a delloo seeni place. waaw xam nga euh, Covid bi moom vraiment li mu yàq bari na mais certes mais nag combat bi man je pense que commencé wul sax Covid bi combat bi c'était depuis 2019 ba léegi ñu ngi ci combat bi avant Covid bi la. combat bi commencé woon te je pense que ça suit sa logique mu ngi suivre logique am te ci loolu lañ nekk est-ce que période Covid bi nga xam ne euh, entreprise yu bari dañu yóbbu seen i seen i euh, euh, travailleurs chômage technique ainsi de suite ñu bari sax pour ñu jotaat seen i place jafe na est-ce que am nga yaakaar ni di ngeen mën a jotaat seeni i place ci période Covid bi. waaw man Senelec man je pense que Covid moom waru ko déranger ah ci sama xalaat man ah. xalaat bon parce que xam nga Senelec moom bokkul ci boîte yi nga xam ni war nañ mën a yëg Covid bi parce que le travail là dafa bari ay postes yoo xam ne c'est post postes vacants bari na ay Senelec yu bees yoo xam ne tijji nañ ko te amul benn agent bu fa nekk bari na au niveau de Touba. ah yooyu bari na ay Senelec yu bees boo demee au niveau de Saint-Louis bi nga xam ne te Michel Sarr moom fa la nekk bari na ay post vacants yoo xam te ni ñu ngi fi. bari na énormément de postes vacants yoo xam ne ñu ngi fii Sénélec. gis nga ni war nañ leen mën a jëlaat. taf taf delloo leen seen. waaw bien sûr man je pense que loolu dong la ñuy ñaanaa ah. loolu kese la ñuy ñaan. Euh, naka gisee au conseil bu dialogue social bi Innocence Ntap jiite est-ce que jàpp nga ni am na njëriñ amul njëriñ ci jafe-jafe yi nga xamante ni souvent euh, liggéeykat yi dañ koy am fii ci Sénégal comme li leen dal wala dal yeneen i liggéeykat. waaw man pour le cas de Innocence euh, au conseil du dialogue social donc euh, man vraiment dama koy remercier de passage parce que vraiment bokk na ci ñi nga xamante ne dañoo jàpp ci dossier bi waaw bokk na ci ñi xam dañoo jàpp ci dossier bi Innocence. na naka la leen jàppale. waaw donc euh, bon comme Jamra mooy nekk facilitateur bi moom aussi tamit dafa ñëw andi appui dafa ñëw andi appui donc euh, ba tax na li tax ma ne dafa ñëw indi appui ba ci protocole bi sax bi ñu koy signé amoon na la présence du euh, représentant du haut conseil mu ngi fa woon te je pense que mm-hmm. moom moo signé woon protocole bi donc y avait Mame Matar y conseil donc te je pense que ñu ngi violé protocole bi dañ koy ñaan mu revenir un peu la raison jàppale waat ñu tamit mooy mu gën ci teg loxoom quoi bi mën a sotti. voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Ousseynou Sougou nekk secretaire général bu collectif euh, de restants du concours euh, de la Sénélec euh, ngeen bëgg amal tamit beneen marche pour gën a fësal seenu métit ngir rek autorité yi taxaw seen jafe-jafe marche boobule kañ ngeen ko bëgg a amal exactement. waaw Ndeye Comba je te remercie bu baax a baax ci kii bi donc euh, marché bi moom yàgg nañ koy def euh, tout récemment la semaine passée on a eu. waaw ah, bëri na moom bëri na. waaw bëri ay am marché yoo xam ne ñu ngi koy def. wax dëgg yàlla bëri na ay marché yoo xam ne def nañu ko avec euh, notre frère Guy Maris donc jeudi passé def nañ benn samedi passé aussi tam def nañ benn mooy la marche de bi nga xam ne rond point obélisque lañ commencé woon dox ba RTS. Mm. donc yooyu yëpp c' yoo xamante ni ñun dox nañu. def nañ marché bi mais marché bi nga xamante ni moom la ñuy waajal mooy le lundi incha allah. lundi ban heure fan. waaw lundi la set incha allah moom ñu ngi wàcc marché parce que déposé nañu demande bi au niveau du préfecture. mais def nañ leen kii na. waaw jusqu'à présent amaguñu autorisation bi nag. jusqu'à présent amaguñu autorisation bi mais euh, de passage euh, ma ma remercier le gouverneur de la ville de Dakar. donc euh, aujourd'hui même il nous a reçu il nous a fait l'amabilité de nous recevoir parce que boo xoolee barki démb bi ñuy arrêté Marius Sagna donc c'était au niveau de la place de euh, l'indépendance donc euh, c'était mooy bi muy déposé euh, autorisation marché bi bi mu génnee ci lañ ko arrêté bi ñu ko arrêté aussi tamit yóbbu ko commissariat plateau donc fa lañ nekk ak moom jusqu'à presque vingt une heures vingt heures lañ ko lañ ko ko lañ ko génnee donc le lendemain le gouverneur de la ville de Dakar moom moo ñu woo ne ñu dama leen bëgg recevoir donc tey ci suba nag la ñu recevoir donc de. bi leen recevoir lu mu leen waaw donc de 12 heures à 14 ñu ngi woon bureau donc y avait la présence du gouverneur euh, notamment donc y avait la présence de Guy Marius Sagna y la présence de du chargé de communication man aussi tamit maa ngi foon woon et d'autres collectifs donc vraiment déglu nañu bu baax euh, déglu nañu bu baax a baax. gouverneur bi ci boppam. waaw bi ci boppam déglu nañu bu baax a baax baax. waaw déglu nañu donc euh, wax nañu daal dina ci def kéemtalaayu kàttanam def nañ wax nañu dina ci def kéemtalaayu kàttanam donc il va appeler les ministères concernés pour ñu xool nan la ñuy régulariser situation bi waaw. loolu la leen wax. waaw loolu la leen wax gëm ngeen ko. waaw donc ah mais xam nga nit ku ne moom kàddoom la am. te te à wax dëgg yàlla xam naa ni moom man personnellement toog naa jàkkaarloog moom mais xam naa ne li mu wax moom bon dal na xel daal. mais est ce bu fekkee gouverneur dalal na leen est ce que seen marche bu lundi bi di ngeen ko amal waaw wala déet. waaw marche bi nag moom bëgg nañ ko amal incha allah. parce que bu ngeen àndee Guy Marius Sagna moom moom bëgg nañ koo amal incha allah le le lundi bu soobee yàlla incha allah waaw. bëgg nañ koo amal le lundi. malgré li leen gouverneur waaw waaw malgré li ñu wax waaw bëgg nañ ko amal la. mais euh, nag mooy comme li may waxee rek. Mm-hmm. su fekkee gars yi revenir revenir nañ un raison moo ñu gënal ñun. waaw parce que ñun tamit ñaanu ñu yàlla ne fii di daw di dàqante yi parce que ñoom ñëpp c'est des frères c'est des sœurs à ñaanu ñu yàlla di dàqanteeg ñoom ay grenade lacrymogène di jóg fii ñaanu ñu loolu yàlla. mais bu ñu sañoon euh, le DG euh, Pape Demba Bitèye revenir un peu la raison ñun ñaanuñu lenn loolu mu woo ñu ñëw nii ak nii ak nii laa bëgg a doxalee seen situation ñun loolu moo ñu gënal. loolu est-ce que yéen du ngeen dem buntu palais boog président Macky Sall dégg leen moo gën nga naan ay gouverneur dalal nañu. waaw mais xam nga xam nga gouverneur moom mm-hmm. ku ko wax nekkul ku ndaw. donc bu fekkee mën nañ jot ci Macky Sall aussi je lance un appel solennel. dem buntu palais taxaw marche. waaw mais xam nga buntu. palais par force président da leen di dégg. <laughs> xam naa ni yow sañ nga xam na ko. ko. waaw Guy moom sañ na ko parce que il a fait une fois donc ñun ñëpp gis nañ ci loolu quoi sañ na ko waaw. Mm-hmm. mais vraiment ndey Kumba je lance un aussi tamit ci président bi vraiment bu fekkee mu ngi dégg samay kaddu mu jàppale situation bi cent soixante quatorze personnes yoo xamante ni ils vivent dans le désarroi sonn nañ trop ba fu sonn yem bon xëy na c'est par ma voix ngay dégg mais am na si ñoo xam ni sonn nañ trop. vraiment trop socialement ah mu nekk lu lu lu doy waar léegi xeex bi euh, sugu da ngeen a dem ba fan. tant que amoo leen gain de cause lan mooy seen plan d'action di ngeen marche marche boobu ba léegi yéen a ngi marche euh, peut-être gouverneur oo na leen wax ak yéen dalal seen xel ainsi de suite bu fekkente ni d'ici quelque temps li ngeen bëgg amoo leen ko maanaam ñu delluwaat delloowaat leen seen liggéey kaay lan mooy seen plan d'action lan ngeen fas yéenee def exactement. waaw euh, Ndeye Comba euh, plan d'action yi moom bari na du jeex plan d'action yi moom bari na du jeex mais xam nga xam nga xeex moom ku koy wax rek da ngay ñaan aussi tamit mu am parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ comme ni ma ko waxaatee sànq rek on est donc euh, suñu kilifa yi ñoom ñoo ñu jiital donc man je pense war nañ mën a woo dans la table négociation ñu waxtaan parce que yàlla yaa yaa mamataar mi nga xamante ne moom moo ciy dox tànku jàmm te fay ñu ko dara vraiment innocence aussi tamit waa moo sonn innocence aussi tamit mu ngi ciy sonn mais dañ leen ñaaxaat parce que ni ñu ñaaxee mooy lan bi tey ñu waxoon nañu après rien du tout te ñun à notre grande surprise li ñu gën a jaaxal mooy tout récemment nee à Kaolack nee à Kaolack nee à Kaolack ñu leen defal ay CDI ñun loolu moom moo ñu def équation léegi et les 174 personnes yi nga xam ne ñoom ñoo toog door di xaar 174 personnes yi nga xam te ne ñii am nañ 5 ans d' expérience ñii am nañ 10 ans d' expérience du ngeen def grève de la faim. waaw waaw xam nga grève de la faim nag moom sama sama gars yi moom. wala yéen ragal xiif. <laughs> waaw xam nga xam nga grève de la faim moom dafa nekk loo xam ni moom dañ koy waaj waajaat ko bu baax. waaw sama classe yi nga xam ne moom dañoo bëgg. dëkk li tax mu wax leen lool ba boobu ba léegi yéen ngi marché ànd ak guy di marche. ñuy jàpp guy di tëj ainsi de suite. ngeen di marche di marche ainsi de suite boobu ba léegi problème bi réglé wu ma ne est du ngeen dem buntu pale comme ça booba euh, Macky Sall xam ni yéen a ngi fi yéen a ngi yuuxu carrément peut-être sax yaramam daw wala ngeen def grève de la faim boog xool. waaw Macky nag moom vraiment ñun liñ koy wax rek mooy. Euh, bu ngeen demee buntu pale yaramam dina daw. waaw xëy na peut-être bi à notre aussi tamit peut dina ko informer situation bi bon loolu lañ jàpp ni dina ko informer situation bi. mais yéen daal du ngeen def grève de la faim. waaw non donc a un bu ñu li may dund métti. yow ragaloo xiif non <laughs> léegi buntu pale nag waaw non buntu mais je ne moom ñu dem buntu palais wax dëgg ñun collectif bi moom yaakaaruma ñu dem. li li Guy Marius Sagna liñ moom ngay ragal yéen. non buntu palais fa la njiitu réew mi nekk. le président de tous les sénégalais. bitey faale mais bitey moo mën a régler seen problème. faale wu leen mais yéen ngi yuuxu faale mais pourquoi pas ngeen dem si patron bitey wax moom. waaw xam nga patron bitey moom bari c'est-à-dire que même ministre de l'énergie xam nga kooku patron bi tey waaw donc le grand patron nga wax mais avec man dama ko fàtte woon sax mais dama léegi amatuñ premier ministre waaw ngeen dem patron bi tey c'est le président la hmm. mooy nouveau ministre bi nga xam mooy nekk le ministre de l'énergie hmm. te puis sax d'ailleurs foofu ñun aussi tamit dugal nañ fa demande d'audience mais jusqu'à présent on a encore rien vu waaw on a encore rien du tout parce que c'est pas peut-être que tamit li mu li mu ñëw bees moo tax lijjanteegul loolu quoi waaw mais je lui lance euh, aussi tam lancé naa ko tamit bon déposé fa ñu a xool nu ñu régler situation bi mm-hmm. parce que ñun loolu dong dong dong mooy suñu soxla Ndeye Comba loolu dong parce que nous vivons ñun li ñuy dund moo raw sax grève de la faim je pense waaw moo ko raw quoi euh, ci loolu tamit dinañ la laaj euh, sugu ci li nga xamante ni mooy jàngat nga ci am parce que nekk na loo xam ne actuellement euh, dafa occupe actualité bi ñu ngi sensibiliser ndaw yi terewul ñu ngi dem utali Europe te ñu baree bari ñu ngi faatu ci biir géej gi yow lan nga ñu si mën a wax. waaw man day Kumba li may mën a wax ci loolu rek euh, mooy euh, désespoir de la jeunesse laa koy waxee ah. désespoir de la jeunesse parce que tamit xam nga jeune boo xamante ni boo am espoir man je pense que du dugg ci gaal gi. waaw parce que gaal boo xam ne yow yaa ngi ci dugg xamuloo fan nga jëm déjà xamoo fan nga jëm amul daray sécurité donc je pense que loolu duma ko sax tuddee xaruwaan vraiment mais désespoir laa koy tuddee. donc euh, may gën a ñaaxaat aussi tamit suñu ministre yi suñu président aussi tamit la politique sociale de l'emploi de la jeunesse aussi tamit mu gën ci taxaw waaw parce que tamit dafa ndey kumba dafa metti dafa metti nga nekk ci réew war tekk ci réew mi. ah am say diplôme war a liggéeyi ah, ñuy préférer des personnes à d'autres personnes man tey jii nii sunu mooy li wax rek bari ci ñoo xamante seen idée yëpp mooy dugg ci gaal gi. Mm-hmm. mais lan moo tax ñu bëgg dugg ci gaal gi mais amatuñu espoir. parce ci je répété au gouverneur ah wax naa ko nee ko suñu collectif yi ñu ngi xeex à ñu bañ a dem ci gaal gi mais la plupart suñu groupe WhatsApp boo leen déggee gaal gi gaal gi ngay dégg gaal gi gaal gi mm-hmm. mais gaal gi gaal gi désespoir kese la man je gaal gi désespoir rek la mais nañ leen. yow yow mbaa anawuma xalaatoo dugg ci gaal. non man personnel personnellement musuma xalaat dugg ci gaal gi. Mm. waaw man moom wax dëgg yàlla musuma. xalaat mais ñeneen ñi jeunes yi ngay seen xel mi seen seen xel mu ngi dem ci gaal gi. te la ñuy évoquer ne moo tax ñu bëgg dugg ci gaal gi carrément. mooy li ma lay wax rek désespoir ah désespoir moo leen dal parce que ku xëy wara a ndékki ah certes mën nga am loo ndékkee mais nga xëy xool sa famille mu leer ni cin li dafa dëppee ah war a faj soxla te et dafa neex xam nga nga war a faj soxla xëy sol sa yére dem liggéeyi wàcc ñëw am salaire le fin du mois faj say besoin faj say besoin parents surtout parents yi ah, surtout parents yi ñu ci bari loolu moo leen ci dugal anecdote laa lay jox euh, am na ci koo xam ne ci ñun parmi nous elle s'appelait Marie-Madeleine Gueye yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana elle habitait à Bargny donc euh, sa maman dafa feebaroon hémodialyse la amee woon donc elle était contractuelle au niveau de la Sénélec ñu xëy un beau jour dog contrat li mu daan fayee ko moom la daan faja yaayam ci hémodialyse ku xam séance hémodialyse xam ni dafa cher donc yaa ji donc moom mënatul fay loolu yaa ji décédé di yaa ji décédé tamit euh, émotion boobu jàpp ko quelques mois plus tard moom mu décédé loolu loolu loolu c'est c'est te yooyu yëpp ay désespoir moo koy waral te am na ci deux parmi nous comme ni ma la ko waxee ñoo xam ne dem nañ ci gaal gi. donc waaw ba des ci xam nga yooyu c'est des choses yoo xamante ni ko seetaanee phénomène la boo xam ni mën na engendrer loo xamante lu doy waar lay doon quoi. Mm. te puis fléau la boo xamante war nañ ko mën a éradiquer dimbali les jeunes donc dimbali les jeunes ça va commencer par là. Mm. mooy les personnes yi nga xamante ñoom ñëpp népotisme au de la Senelec te je pense que loolu warul nekk loo xam ne. tey ji yow lan mooy solution euh, Ousseynou Sougou boo doon euh, suggérer dara état wu Sénégal ne ko état bi lii nga war a def ak lii pour jeunes yi mën a des fii ci réew mi liggéey ñafe. waaw man li may suggérer état bi mooy mu gën a jàppale les jeunes donc l' emploi des jeunes c' est ça Ndeye Comba loolu mooy combat bi l' emploi des jeunes te aussi tamit jeune yi bañ a benn liggéey ah bañ benn liggéey. gis nañ fi dañuy xeeb yu bari waaw donc xam nga xeeb nag moom boo koy def dafa fekk ni sa bët da ko teg fu sori quoi mais man je pense que commencement en forgeant qu'on devient forgeron. nee nañ loolooy problème bi parce que da ngay gis actuellement étranger yi ñuy liggéey fii ci réew mi soo ko joxoon les jeunes sénégalais dañuy bañ. tamit loolu c' est problème. waaw loolu aussi tamit c' est un problème mais xam nga kenn ku ci nekk ak ni nga mel ah man je pense que kenn ku ci nekk aussi tamit nga mën a indi sa xel revenir un peu à la raison donc euh, li lay dimbali yow yaa koy defal sa bopp déjà parce que xam nga état bi moom je pense que il ne peut pas tous les jeunes un travail mais yow aussi tamit yow yaay jug. xam nga nga sol say xam ni kat man carrément lii la parce que xam nga tey jii Macky Sall du la fekk fi nga toog ne la am liggéey ngi nii demal nga liggéey non non man foofu la war a commencer quoi mu dimbali leen ñoom ñëpp aussi tam sociétés yi ñu bàyyi xel ni ñi nga xamante ñu nga fa yàgg nañu fa ñu régulariser leen ñu bañ sax nga indi sa jarbaat teg mais régulariser li nga xam ne moom moo fa nekk. maanaam précarité bi nekk ci entreprise. waaw waaw li nekk ci entreprise loolu dafa doy waar te ñu ngi koy dund bari léegi auto entrepreneuriat maanaam li li état bi di wax tout le temps état bi mënul jox ñëpp liggéey jeunes yi war nañu ku nekk ut sa benn genre entreprise nekk fa di bay sawar doon nga dégg ay financement ay DER ainsi de suite euh, nga gis ni tamit euh, financement yooyu yëpp da ngay gis ne ndaw yi pour ñu jot si ça pose problème. waaw effectivement xam nga financement nag moom boo koy wax rek dafay fekk dafay am suivi mm-hmm. donc xam nga nit ki tamit doo jël xaalis investir ci moom jox ko mm-hmm. xaalis mais te amul suivi mais il faut tamit kenn ku ci nekk ci ñun am de projet un peu déterminés. ne des projets yoo xamante ni da lay leen lii soo ci duggee dina la rapporter loo xam ni yow la la abaloon di ko mën a delloo ba jël sa bénéfice nekk ci nag waaw man loolu laa gëm quoi. waaw loolu laa gëm mais c'est ça waaw xam nga côté boobu nag man amuma ci noonu expérience ah, quoi xam nga man non man man je man clientélisme politique. waaw xam nga maanaam financement yu bari dañ koy jox seeni ñi fara ànd ak ñoom. waaw xam nga politiciens yi ñu ànd ak ñoom. xam nga man dañ ko ma man côté bi ma nekkee man xam nga laajuma financement vraiment laajuma financement man Senelec laa nekk donc laajuma man financement mais des jeunes yi nga xamante ne ñoom ñu ngi ci entreprise. waaw côté boobu laay yi ne ñoom dañoo nekk ci entreprise yi donc certes mooy li may wax sànq rek xam nga boo laajee financement ba ñu jox la xam nga nga nga fexe góorgóorlu ci. Mm. liggéey ci loo xam ne dafay am rentabilité. mën a fay ñeneen ñi mën a jot waaw pour ñeneen ñi mën a jot loolu rek. voilà euh, ci compteur Woyofal yi euh, sànq sax yaa ngi ko doon laal peut-être euh, compteur Woyofal yi moo leen yóbbee lii mais du ñu gis ni compteur Woyofal yooyu tamit léegi sax consommateurs yi pour ñu jot si problème la pour yow lan moo ko waral. waaw xam nga compteur Woyofal yi c'est des démarches donc xam nga jàppoon nañu bu ñu ñëwee rek imposer les clients le compteur Woyofal donc dafay nekk loo xam ne lu facile la donc je pense que c'est un peu communication bi aussi mu ngi jàll certes mais dafa am loo xamante ni dañu ko dul bàyyi xel. donc xam nga compteur Woyofal yi c'est des démarches donc il va falloir que nga ñëw Senelec def sa demande ATC bi jaar fa ATC mooy l'agent technico-commercial moom moo fay jaar pour voir l'installation su fekkee baax na mu bindal la papier papier ne la demal nga fay la caution donc loolu la. mais dañu gis dafa jafe maanaam Sénélec euh, nangootul joxe compteur yi foofu laay waxee. waaw dafa dafa arrangé wul Sénélec wala nu mu demee noonu maanaam léegi pour mu joxe compteur Woyofal c' est un problème. waaw mais man je pense que compteur Woyofal yi donc euh, xëy na politique gu la. Mm. waaw xëy na politique gu la te je que clients yi bari aussi tamit ñoom loolu ñu bëgg peut waaw parce que da lay permettre nga mën a gérer sa consommation. da lay permettre aussi tamit comme par exemple mën nga jënd dix mille francs le mois quinze mille francs ça dépend ci li nga xam ne yow loolu ngay jënd. mais moment bi consommateur yi demee ba gis seen bopp ci woyofal bi ñu gis ni Senelec sawaratul joxe compteur woyofal. waaw xëy na xëy na xëy na compteur dafa manqué rek aussi peut être mais aussi tamit euh, ñu bàyyi xel benn affaire. Mm-hmm. Euh, ñu bàyyi xel ni la demande est beaucoup supérieure ah, à l'offre waaw loolu aussi tamit ñu bàyyi ko xel. Mm-hmm. la demande est beaucoup supérieure à l'offre te aussi tamit Senelec dafay màgg. donc ñi nga xam ne dañuy soxla compteur dafay bari

et que dinañ fa am gain de cause ñu ngi koy yaakaar. am am nañ fa yaakaar daal ñun daal liñ koy ñaan rek mooy du lenn lu dul mu wooñu ci table de négociation parce que ñun combat bi bëgguñu ko combat bi gënaluñu. jot seen liggéey ngeen bëgg. am jàpp seen ñam. waaw te je pense que loolu li ñu koy may mooy ñu wooñu table de négociation woo Mame Matar ah, woo Innocence bu ko defee ñu xool nan la ñuy situation boobu noonu quoi waaw loolu daal loolu la bëgg daal xamante ni ñoo nekkoon tey ci suba lu mel ni Cheikh Ahmadou Soumaré di remercier ñoom euh, Ablaye Touré le le le coordonnateur di remercier le trésorier Mbaye Yàgg di remercier tous mes parents di remercier tout le collectif restant du concours di leen wax ni du courage aussi tamit certes métti na mais nañu jàpp taw bàyyi rek ensemble nous vaincrons incha allah. mi ngi noonu ñu ngi koy remercier bu baax a baax moom tamit Ousseynou Sougou nekk secretaire général bu collectif des restants euh, du concours de la Sénélec ñu doon waxtaanee seen i jafe-jafe euh, di leen remercier yéen tamit suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi émission bi tamit mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu. Euh, site internet www.rewmi.com ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ba samedi prochain incha allah ci beneen émission euh, beneen thème ak euh, beneen invité ak Ndeye Comba Moreau jaa jëf.